amis des internautes ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi faral di seetaan étoile jamono site bi nga xamante ni chaîne d'actualité la saa su ñu leen di wax wéy leen di abonné ngir ngeen di xam di xew ci réew mi tey jii nag ñu ngi fii ci biir Caritas Caritas koñ bi ñuy wax dëkkandoo ñu xëy dëkkaaleeg mbir mu doy waar muy ab loxo nit boo xamante ni dañ ko ni tàppit dagg ba pare sànni ko ci sën bi fo xamanteni ay neefare fas mo fa nek fa lañ fekk loxo doomu adama biñ xayma ay atam nak mu ngi tollu ci ñeenti at ba juroomi at euh, ci lolu nak ci teewaayu commandant bi nga xamanteni moy bu brigade bu cheval Fadiouth te liggéeyam ñukoy koy rafetlu lool sa su nek ñu ci mëne ab enquête wante talal nañ suñu micro wa koñ ba ñu xool la wax. kilifa gi ma ngi lay nuyu. ñu lay ziar ñu lay ziar. mbir mi euh, naka la démé am nga lo ci xam wala. ah mbir mi day. doy na waar lool na waar lool parce que nii daal lañ ko gisee waaw vraiment métti na lool parce que bon ñëw nañ fekk fi loxo bi waaye amuñu yaakaar ne ñu ko def fii lañ dëkk. loxo nit la bu ñu dagg loxo nit la bu ñu dagg. fii fii waaw mais amuñu yaakaar ne ñu ko def fii lañ dëkk. vraiment. Euh, fii Caritas la. Caritas la Caritas waaw. kon daal yéen a yeewu. dañoo yeewu daal xëy rek gis ko gis ko fi xamuñu ñu ko fi def. Hmm. xamuñu tamit ne ñi ko ñi ko def fii lañ dëkk. Hmm. en même temps euh, yoon ñëw na di def liggéeyam hmm. bon nañ ko bàyyi kon donc mu def liggéeyam. waaw vraiment. la waaw. maa ngi fay. Euh, yow li xew seen koñ lan ci mën a wax. ah li daal doy na waar. ndax en dañoo jàng ba wàcc ay xale ñoo doon foofu ñu gis fii benn dañ ko xool ñu ne ali ah, loxo la si lañ woowee suñ benn mag bu nekk fii mu xool ko mu ne loxo la li après mu dem xoolaat mu xam ne dañoo Sila loxo bi fii si la wootee waa koñ bi après si la ñëw suñ benn kilifa bu nekk fii si la woowee kii nu tudd François mhm. si la woowee ñu affaire bi daal doy na waar en tout cas loxo nit la waaw à loxo mun nga ñu wax ndax loxo xale la wala loxo mag wala la nga ci non la mhm. bu ndaw la sax mhm. bi dañ ak lañ dañu dagg dañu dagg ci bara bi dagg ci baaraam bi. waaw lu doy waar sax. mais daal loolu kenn mënul remarqué yàgg na fii wala niñ ko gisee. ah loolu moom xam ni dara ndax am na ma xool suuf si xale neen dañ doon jàng mais seetluwuñ ko. Hmm. sànq rek lañ ko remarqué. Hmm. doy na waar torop kay. waaw loolu lañ si mën a wax fii moom moo nekk Caritas waa Joal Caritas ay see dëkkandoo fi mooy dëkkandoo association dëkkandoo la waaye dëkk ñi moom ma xool am am nañ taxawaay su koñ bi moo tax lu ñu gis dañ koy signalé mais mais li yàgg na fi am wala lu non lii moom ñu koy soog a remarqué moom hmm. ñu koy soog a remarqué seen koñ bi dafa manqué sécurité waaw fii dafa manqué sécurité foog ñu taat ay foog ñu taat Euh, ay moyen pour ñu am gën a sécurité koñ bi daal fi woorul foog ñu lampul yi ma xool fii dafa lëndëm xanaa koñ bi sax moo fi xaw a mais si ginnaaw fii dafa ba amul lampul amul daara te loolu wóorul fii mën nañ fee jël xale sax tootoo xam dara wóorul wóorul dool suñu mënee ñu jàppale ñu ñu jàppale ñu na leen ñu jàppale koñ bi jëm kanam na ñu jàppale loolu laa noonu itam am na ñu wax ni koñ bi dinay faral da am ay agression yoo xam ne dañ leen fay agressé waaye yu mel nii nag kenn mosu ko woon di ko faral di gis muy ay loxo nit ñu dagg gendarmerie nag ubbi na ci enquête am ñuy xaar fal la wànneen di mujjee ki bëtam.